mouvement bi te mouvement bi yaakaar naa ne wuyu na turam ndax boo nee jubal ndax réew mi laaj na ko mais nit ki nag mënul jubal te leeralul citoyens yi dañu soxla lu leer kon boo jubalee war ngaa mun a leeral la ca kanam ndax jubal ak leeral day indi jàmm ci réew ndax jàmm paix sociale d'abord pour mun a am développement suñu parrain à vie muy jubalee ci cas yaakaar naa ne jàkkaar naa ak réew mi yëpp nee leen man samay loxo ngi nii dafa set wicc musuma jël dërëmu réew mi te yaakaar nañ ne loolu waa Sénégal yëpp seddal nañ ko mouvement bi nag 46 départements wu Sénégal yëpp ñu ngi ci biir la diaspora aussi au Gabon aux États-Unis en France nous avons beaucoup de membre yoo xamante ne ni ñi ngi ci biir donc jàppale ne mouvement bi c'est même au-delà des frontières de ce pays